grand ba ginnaaw ba ñu la nuyoo di la ziar euh, di am mbégte bu rëy ak kontaan te ak yow suñu émission round up. waaw Pa Ibrahima maa ngi lay nuyu di nuyu mbokku internet Sénégal 7 TV yëpp. Hmm. Euh, di leen ziar di leen hmm. wax ne yaakaar naa euh, képp ku màndiwul làmb. Hmm. dootoo gaaw màndi làmb. parce que le 5 novembre moom ce restera une date historique. dans les de la lutte avec frappe au Sénégal. parce que combat bu amee woon dayoo bu mel nii yaakaar naa gëj nañ si Yékini Balla Gaye 2 en 2012. Hmm. parce que combat bi dépassé woon na sax un un Balla Gaye 2 Modou Lo en 2010. Hmm. donc combat la boo xam ne dafa teniroon en haleine le monde de la lutte. Hmm. dafa teniroon en haleine le Sénégal dafa teniroon en haleine les politiciens les politiciens n'existaient plus dafa teniroon en haleine lépp. c'était la première fois lii dafa tekkal làmb dañ doon yàgg wax ne Ama Baldé Modou Lo mooy tekkal làmb te effectivement Ama Baldé mooy tekkal làmb parce la gis jour la ñu gis restaurant yi hmm. la ñu gis marché hebdomadaire yi kenn jaayu hmm. jour boobu la ñu Sénégal ñu joué ko si région yi ba ñu ko joué à Dakar à Dakar dekkiwaat na lamb dekkiwaat na si combat mu nekk mu nekk combat boo xamante ni cinq ans ñoo ngi ko doon xaar amateurs yi di ko xaar hmm. foo toll foo tourné gars yi di ko waxtaanee mu nekk entre derby entre Pikine ak Parcelles euh, mu nekk combat boo xamante ne combat bu mucc ayib mu nekk ba dem feu ñaari mbëri ci arène nationale. waaw waaw mu nekkoon combat boo xam ne nag 5 ans ñu koy xaar. parce que 2019 mm. la ko la ko Luc Nicolaï mm. joxe woon avant jox Jules Baldé. 2019 ba léegi ñu koy xaar ak li si xew yëpp. Mm. corona bi xew fi Luc Nicolaï ñu téye ko fi renvoi blessure à Modou bi à l'épaule blessure Ama Baldé bi donc lu bëri xewoon na fi. donc mu nekkoon cinq longues attentes. 5 longues années yoo xam ne attente bi dafa dafa yàggoon moo tax keroog. vraiment Ama Baldé ak Modou Lo libéré nañu képp ku ñëwoon stade tamit. Hmm. ñu mari nit ñi à 12 heures commencé woon nañu dugg si stade bi. Hmm. <coughs> stade bi commencé commencé amay nit. donc ça veut que nit ñi yàkkamti woon nañu affiche bi. Mm. ba pare yàlla moo def ba nga xam ne. Mm. ah euh, le CNG jël ay dispositions. Mm. dindi siège yi nga xam ne ñoom la gars yi doon toogee. dindi ko sandi ko donc ça veut dire que gars yi préparé à tout sécurité bi tamit était à son maximum donc vraiment combat boobu la boo xam ne daal. l'histoire retiendra. mu nekk une premier réussite. pour ki nga xam ne moo di Modou à l'arène nationale. Euh, ginnaaw ba mu jëlee roi des arènes. waaw. Euh, Euh, au stade Léopold Senghor. si mhm. kaw Eumeu Sène. mu ñëwaat Pikine. Mhm. Euh, doon doon def euh, baptême de forme ci arène nationale mu daal di koy réussir. Mhm. tey jii si global ban analyse nga ñu mën a defal si combat bi. waaw li may mën a wax rek mooy. moo Lo da doon bëri ji à l'extérieur. Hmm. Modou moo doon bëri si Ama Baldé moo doon recevoir. Hmm. Modou Lo c'était sa première sortie à l'arène nationale Ama Baldé aussi c'était sa première sortie à l'arène nationale. Hmm. donc mu nekkoon donc on combat boo xam ne aux enjeux énormes. enjeu bi mooy c'était la couronne royale. donc ça veut dire que ñaari mbër yi hmm. dañu leen doon xaar ñu pare sur tous les plans sur le plan physique sur le hmm. plan mystique hmm. mais ñun bi ñu duggee si géew bi ñaari mbër yi bu ñu ñëwee am am Ama Baldé moo njëkk ñëw mais Ama Baldé bu mu ñëwee ñëpp gis nañu sur le plan mystique vraiment il avait mobilisé tout lépp lu mu amoon millions yi ñu ko fayoon si combat bi dafa def si mystique millions yu ñu ko fayoon yëpp daf ko def si mystique. ñooñu doon gis eh, Ama Baldé naan ne combat bi duma ci def taw. te dafa waxoon ne combat bu teeloon gis Modou Lo du def taw mais je pense que loolu waxu waxu. c' est le waaw c' est le sens contraire da doon jéem a démoraliser ki nga xam ne Modou Lo. Hmm. mooy Modou Lo mais gis nañ ne Ama Baldé il a mis ay millions yu bari si mystique. Hmm. kenn xamul ñaata saako moo kenn xamul ñaata butéel la sangoo. donc ça veut dire que sur le plan mystique moom Ama Baldé badinawul sur les moyens. Mm. ñoo gis Boucher que Diop daal def sortie yi ne mm-hmm. euh, Ama Baldé a été atteint mystiquement. mais loolu Boucher mu loolu moom lu muy affirmer loolu moom la moom la concerné. Mm. mais Ama Baldé lu mu andi. Mm. pour nga jàpp ko atteindre ko mystiquement je pense que loolu dina dina doy waar parce que Modou bi nga xam ne tey moom la ñu yaakaaroon mooy andi arsenal lu mystique Modou benn morceau bu vert la takk si digg li jël benn ay ay kii takk ko loxo yi amul leneen. donc tey bu ñuy wax jàpp mystiquement dañuy war a wax ne moot Lo la ñu atteindre mystiquement mais moom mu Boucher bi wax loolu moom moom la concerné moom moo affirmé loolu. mais am na mais mais mais mais am na ay magum yu naan. waaw luy gën a ñëw stade. waaw loolu moom je je n'en am na am na borom xam-xam yoo xam ne du ñu déplacé wu ñëw stade ba ba gagné combat. Hmm. mais pour jàpp Ama Baldé mystiquement man loolu aw ma si benn preuve pour avancer que ne Ama jàpp nañu ko mystique. Mm. mais li ma mën a gis constaté ko mm. yow nga constaté ko Sénégal constaté mooy Ama Baldé jour combat bi andi na mystique bu doy waar mm. arsenal mystique arsenal mystique millions yu bari la def si mystique fu ne dem na fa fu ne dem na fa donc sur le côté mystique gis naa ne daal Ama Baldé il a le les moyens tandis que Modou Lo gis nañ ko euh, ñëw na andiwul bagage yu bari peut-être ñoom saa Touba ñoo fa nekkoon di di di sotti di def le show di def le mais moom Modou Lo en personne vraiment ay quelques bouteilles la sangoo y a un projet de sax ki ki mu may wax ni démb. Modou Lo ndox ki ren sangoo. waaw ndoxu ki ren loolu moom. <laughs> dina ma xaw a jaaxal peut être ay yàlla daal moo xam mais gis nañ ko daal muy jël ay butéel. ah, ah di sangoo di sangoo. Hmm. mais sur le plan mystique gis nañ ne Ama Baldé vraiment moo gën a mobilisé. Hmm. mais sur le plan fraîcheur. bi hmm. Modou Lo ñëwee. Modou bu mu ñëwee ba combat bi ba avant arbitre bi siffle Modou Lo toogul. Modou Lo il ne faisait que des

réveil musculaire ki nga xam ne mooy Modou Lo mu def commencé ay contact commencé ay contact Yaaram il a beaucoup aidé Modou Lo si côté boobu. réveil musculaire boobu muy lu muy lu am solo. si mbër am solo. loolu tey boo ko laajoon hmm. les médecins tout ça nañ la wax ne réveil musculaire avant benn compétition wala balaa ngay def dara loolu def si baax te Modou hmm. mu yaram gi réussir na ko ab Modou te dañuy gis ni eh, mbër yu bëri dañ koy négligé. dañ koy négligé réveil musculaire avant combat. Ah. da ngay gis mbër boobu ñoom eh, mbër ñu ngi gis mbër boo xamante ni. Hmm. day nekk topp di sangu di sangu di sangu di sangu. Ah. ba yaram bi sedd. ba yaram bi yow boo échauffé woo 10 minutes léegi euh, variation de température nga jóge ci tàngaay dem ci seddaay loolu baaxul sax ci muscle. non loolu moom bëri li ñuy def. mën na la nagam loo c'est pas recommandé. Hmm. munoo nekk di daw di sotteeku ndox daw di sotteeku ndox. Hmm. vraiment c'est pas recommandé. Hmm. tandis que Modou Lo instant boobu vraiment il avait le corps chaud. di nga xam ne mooy Ama Baldé. mu nekk un un surprise ci kaw ci kaw ci kaw amaa Ama Baldé. li ma jàngat ci combat bi ah? te yàlla dëgg rek la wax. Modou Lo mm. Ama Baldé Modou Lo dafa mën Ama Baldé mm. dafa ko mën sur le côté euh, préparation. Mm. moo ko gënoon préparé moo ko gënoon ëpp doole. Modou moo ko moo ko mënoon si nga xam ne moom mooy musique. man daal jàngat boobu laa am. Modou Lo dafa mënoon Ama Baldé si plan yëpp. si euh, combat euh, bu ñu def ni ni Ama Baldé dafa si combat bi. parce que boo xoolee euphorie bi daf ko emporté. touche bi topp mystique bi. ah lépp nga bëgg ko defal si mbër mm. jour du combat da war a concentrer mm. focus sur l' mm. mooy li nga xam ne moo lay may ndam waaw Ama Baldé gis naa ne pression bi bari woon na yaakaar bi bëri woon na vraiment il avait même bët yu coy les yeux rouges vraiment pression bi dafa metti woon parce que boo xool le vendredi il s'est même déplacé jusqu'à Touba pour voir son marabout ah déplacement yooyu Ama Baldé dañ ko waroon xaar tey mu mu toog am benn kii hmm. am benn noppalu hmm. dugg ci fenn foo xam ne du du kii c'était difficile pour Ama Baldé hmm. tandis que Modou Lo il est à Lac Rose am na foofu hygiène hygiène de vie bi nga xam ne moo gën a optimal moom moo gën a optimal que si gis naa ne daal récupération fraîcheur côté Modou Lo la gënoon nekk pression bi c'était sur le côté de Ama Baldé Ama Baldé la preuve bu arbitre bi sifflé il voulait en finir il voulait parce que ñëpp xamoon nañ ne day dem te hmm. loolu la def arbitre dafa dafa sifflé mu léwatoo euh, quelques secondes mu dox ci kaw ki nga xam ne mooy mooy Modou Lo hmm. sànni coup mu dal Modou Lo Modou Lo riposté Modou Lo riposté nag fa la la jàppante bi am cinquante deux secondes la combat bi lépp yi dafa gaaw Modou dem na bay rëpp ñaari oom yi mais rapidité mais ñoo euh, ba Ama bale joxe coup Modou Lo mhm. Modou Lo riposté ko waaw soo xoolee taxawaayu amaa Baldé. waaw amuloon garde bu baax. parce que dafa jël ñaari coup yu dal dafa jël ñaari coup yu dal yu ko déséquilibré. Hmm. loolu moo andi jàppante bi. mooy mooy am benn distance. waaw moo am benn distance tant que mu Ama Baldé commencé jaxasoo. Uh-huh. ñu dem jàppante bi ñuy jàppante Ama Baldé gis ngeen li mu doon tante lii mu doon tante. mais mais mais bañ bañ jàppante. Hmm. Ama Baldé am na fa ñaari Baldé bi yoo xamante ni. waaw combat bi moo na jeex mu raté ko. waaw Modou Lo ba muy sukk. ba muy sukk. ak Modou Lo bu muy tànte mbot bi. mbot bi ba muy tànte mbot bi ba muy tànte mbot bi loxo bi jàppul si dara jàppul si benn morceau. donc sur sur deux yooyu. waaw ban ban ban yan enseignement nga ci mën a tiire si côté sportif. enseignement bi dafa leer. Hmm. ça veut que am Modou Lo moo gënoon véloce. Hmm. Modou Lo moo gënoon rapide. Hmm. rapidité moo jeexal combat boobu. parce que Modou Lo benn instant moo surux mais mooloo fexe na ba génn surux surux bi. suruxal ki nga xam ne moom mooy Ama Baldé. ça veut dire que Modou Lo il était plus rapide moo gën a baax. parce que Modou Lo il était plus rapide amul woon graisse yaram bi. Mm. tandis que Ama Baldé dañu gisoon benn lourdeur si moom il était plus lourd ki nga xam ne que son adversaire mm. ensuite mbot bu mu doon tenté bu ko tenté woon tey leneen la wax bu ko réussir leneen la ñuy wax mais mënu ko woon réussir ndax lan mbër bi mu doon bëre. est ce que est ce que est ce que jàppoon ni. Mm-hmm. ah Modou Lo bu bu bu fekkoon. bëriwul amoon na ay musique si yaram bi. Ama Baldé mbot bi di ko réussir. parce que dina am fu mu jàpp. mais fu mu jàpp mais mais mais gis nañu euh, yaramu Modou Lo bi amul dara. Hmm. du coup foo pour nga jàpp pour nga jàpp ko bu baax. Hmm. day jafe day day jafe donc loolu moom moo xañ victoire bi peut-être nga xam ne mooy Ama Baldé mais est-ce que tamit bu amoon fu mu jàpp Modou Lo mbot dina ko daaneel loolu tamit yàlla rek a xam. Ah. parce que loo Lo kat la. man daal li may wax si combat bi daal. Hmm. Ama Baldé il s'est préparé mais dafa dajeeg mbër bu nga xam ne moo ko mën bés boobu. Hmm. sur le plan tactique sur le plan de la lutte sur le plan bagarre ak sur le plan mystique. moo hmm. mën gis naa ne. Modou Lo moo mën du boobu ki nga xam ne mooy Ama Baldé. Ama Baldé nag il n'a pas démérité def na lu mu def war la def pour andi victoire mais pression bi pression bi dafa nekkoon si côté am ensuite sur le plan préparation physique. gis nañ ne Modou Lo moo gën a oos contact yi nga xam ne moom mooy Ama ah. Ama Balde. Hmm. donc na defaruwaat ñëwaat ñu encouragé. parce que dafa bokk si làmb parce que euh, gis nañ Ama Balde ba mu defee open press. Hmm. mu def benn 100 mètres maanaam la grand Iba. Ah. Ama Balde dafa mel ne forme bi mu indi forme athlète la indi. Ah. mais boobu nax nañu bëri ba hmm. ñaari mbëri simee ko. waaw da ngay sentir ni sax. Euh, Ama Balde moo gën a pare. physiquement waaw ñu simee ko da ngay gis ne kële moo da nga gis ne Ama Baldé moo ëpp volume ki nga xam ne mooy Modou Lo da koy ëpp volume mais sur le plan doole doole sur le plan vivacité. mais da ngay sentir y a une différence entre euh, masse musculaire ak ah, ah, ah, force musculaire. gis nañ ne loolu différence boobu dafa feeñ ba pare Ama Baldé Modou Lo il était plus rapide Modou il était plus véloce Modou Lo moom moom yaramam Modou Lo boobu lu neex mënoon na bëri 30 minutes di jeexal. 30 hmm. minutes ak Modou ak Ama Baldé du jeexal. Hmm. donc combat la boo xam ne daal sur plan physique gis naa ne daal. Modou Lo il était plus près. Hmm. sur le plan de la bagarre gis nañ ni Modou Lo il a ki nga xam ne mooy Ama Baldé. Hmm. sur le plan de la lutte pure gis nañ ni Modou Lo il a dominé ki nga xam ne mooy Ama Baldé. Hmm. même sur le plan mystique tey Ama Baldé Arsenal mystique bu mu andi ak Modou Lo lu mu andi tey Modou Lo moo mujjee am dam li donc euh, beneen facette la à Modou Lo daal. andi si combat wane na c'est le roi des arènes kenn mënatu ko laam-laamee. toog na cinq ans ñëw bëri à l'extérieur daan donc bi mooy quatrième victoire Modou Lo am ko à Pikine njëkk na daan laay bay daan fa ëmm seen ñaari yoon tey daanaat fa ki nga xam ne moo war a dugaat Pikine mm-hmm. euh, au mois de janvier mu war a dugaat Pikine le pro le premier janvier 2024 mook Boy Niang mais je pense que ñaari adversaires yi bokkul bal Baldé ak Boy Niang mënuñu bokk mm. Ama bal Boy Niang est plus tactique que boo que que Ama Baldé dafa tactique. boo boo xoolee loolu Modou loo waxoon na ko. waaw moo ci ci plateau Mbantamba. loolu moom spécialiste xam nañ ne boo Niang c'est un lutteur boo Boy Niang lenn du tax mu changer stratégie. Mm. c'est un lutteur défensif du asaaloo ay ay kombaam du du du du saax saaxee kombaam xam na ban heure la war a dóor. xam na ban heure la war a jàpp xam na ban heure la war a song mm. donc euh, ak Ama Baldé bi nga xam ne moom stratégie am da nga koy xam avant combat bi man yàgg naa wax ne mm. ñëpp Sénégal yëpp xam nañ ne Ama Baldé ci kaw Modou la jëm mm. loolu dafa leeroon même Modou Lo mi doon bëre moom xam na ne loolu lay def mais parfois il faut changer stratégie parfois round d'observation dafa baax si combat que match bu ne ak physionomie match bi nga xool ni ngay aborder ni nga koy aborder waaw adversaire bu nekk ak ni surtout waa Pikine dañu soxla woon ndam képp kuy takk ngeemu moo la gënoon soxla victoire bi lépp luñ ko mënta wax Ama Baldé moo gënoon bëgg victoire bi. Hmm. mais dafa am lu ko manqué woon mooy encadrement boo xam ne bu doy waar. Hmm. encadrement bi gis naa ne manqué woon. manqué na si s'il avait ça à sa disposition tey leneen la ñuy wax. encadrement bi am ay ay staff bu staff technique bu extraordinaire bu doy waar bu am maturité dina xam nu ma koy bëralee hmm. dina xam am Modou Lo mi lan mooy jeexal combat bi ak hmm. lan moo ko dul jeexal hmm. ak nan nga war a aborder Modou mais loolu yëpp ñoom jànguñu ki nga xam ne moom mooy Modou Lo dañu bàyyi woon rek Ama Baldé mën na mën noonu kenn du ko jàngal bëre xam na nu muy def bu arbitre sifflé day dox sa kaw mais dafa am nooy doxee sa kaw mbër lan lan nga jàpp ne mooy erreur yi nga xam ne moom la Ama Baldé def si si biir combat bi erreur bi il n'a pas trop respecté. l'adversaire l'adversaire il n'a pas trop respecté Modou Lo. Hmm. ensuite kàddoom yu njëkk yi. Hmm. kàddoom yooyu. kàddu Modou Lo euh, Ama Baldé yooyu. Hmm. tax na tey il il il ñëw wone loolu. dafa doon dafa doon woneen affaire ngóora. mais lamb du loolu. làmb làmb xel la. làmb tactique la. Ama Baldé fu mu toll dafa waroon andi tactique bu mun a daan Modou Lo. yàgg naa la ko wax yàgg naa la wax stratégie tactique mooy daan Modou mais Ama Baldé yàgg nga ko wax fii. yàgg naa ne Ama pour nga daan Modou Lô il faut être tactique tant que tactique comme moom munoo ko daan. mais boo ñëw rek si asaaloo sa combat jàpp dóor jaaxal dóor dóor yooyu parce que Modou Lô ñëpp xam nañ ne dafa gaaw. Hmm. gaawaay boobu moo jeexal combat bi. Hmm. amul leneen lu luñ ko mën a kii lu dul ne Modou Lô il était plus près sur le plan hmm. moo ko ëpp doole. moo ko moo ko dàq bëre ci combat bi moo ko gën a am préparation physique ci combat moo tax mu daan. Mm. Mm. Ah. et si c'était le cas échéant la defet de Modou boobu lan la gars di wax. non dañuy jël ne Gris Gris Modou Lo mystique dafay non bu daan woon gars yi dañ koy génnee làmb ji. ses supporters même Modou Lo bu mu ñëwee seen xel dalul. dalul dañu toogoon si nen. Mm-hmm. ñoom ñëpp dañu ne xàmmeetuñu Modou Lo. Mm. Modou mi lan la. daa bëgg a bàyyi làmb ibaadu bi daa a bàyyi loo ibaadu koy wax. ainsi de suite tey mu Modou Lo daanu woon si combat mooy gën a metti bu Ama Baldé bu Ama Baldé mooy gën a metti parce que da gars yi dañ ko doon génnee làmb ji dañ ko doon génnee làmb ji dañ ko doon génnee làmb parce que nañu waxante dëgg ñun africain mystique dafa bokk si làmb hmm. charme làmb mooy <laughs> mystique butéel yooyu daf si am solo mais da nga si demee xel bien eh. que nag làmb entraînement moo koy gagné hmm. léeg-léeg quatrième position la ñëw wala sixième position ndax ku sa doole jeex nga bàyyi bëri ku sa doole jeex nga bàyyi bëri man tey boo ma doxoon téere bu Ama Baldé yooyu yëpp ma dem ak Modou Lo Modou Lo daf may daan alu leer de donc comprendre nga hmm. mi mystique bi am na quatrième position wala mm. cinquième position la ñëw eh. li jiitu mooy les entraînements mm. donc Ama Baldé na takkaat dàlliir mm. Ama Baldé yaakaaru Pikine la Ama Baldé xam na ne combat bi gën a metti nag moo ngi koy xaar mooy eh. Gris Bordeaux eh. parce que Gris Bordeaux moo ëpp volume ki nga xam ne mooy mooy mooy euh, Modou Lo Gris Bordeaux dafay xeex day bëre donc Ama Baldé na takkaat ngemb lenn rek laay wax Ama Baldé su nekkee dafa am feebar bu ko dal na dem faju ji su nekkee am na lu ko lal na dem opéré ju parce que wax yi bari na. Hmm. man bi ma man jege naa Ama Balde mais gis naa ne il marchait péniblement. Ama Balde man maa ko jege gis naa ne dafay mel ni day soox. tànk droite bi waaw waaw. dafa mel ni day soox tànk droite bi. su nekkee dafa am blessure. loolu xaw na feeñ feeñ ci combat bi sax ko bu mu yàq carrière am. su hmm. nekkee dafa blessé na dem mu opéré wu ci. Hmm. ba wër mu soog a ñëwaat. parce que ñi ko yaakaar dafa bari. parce que na sauvegarder santé am d' abord. sa santé avant tout. wóor na ma ne Ama Baldé bëri na ak blessure laq ko ay mbokkam hmm. ngir rek jeexal bés bi parce que combat bi dafa yàgg hmm. man kay li ma koy conseil su nekkee dafa blessé entourage bi xam ne dafa blessé blessure bu sérieuse na dem faju ji ba wër hmm. soog a ñëw jàkkaarloo ki nga xam ne Gris Bordeaux mu renvoyé même le combat parce que il waa Pikine duñu ñu tuñu admettre Ama Baldé daanu ah. une deuxième fois d'affilée na defaruwaat na defaruwaat soog a ñëwaat su nekkee dafa blessé parce tamit ah sa santé avant tout. Hmm, la santé avant tout gars yi bëgg nañ ko trop trop trop. mais santé avant tout. Euh. peut-être que est-ce que lu mu bëggoon liggéey ci combat bi sax liggéey na ko ndax blessure boobu. Hmm, hmm. parce que ñu ngi doon laam-laamee dafa blessé. dafa amee ay neer euh. dafa amee ndigg tout ça wane na ne si combat bi. man euh, demarche Ama Baldé bi ci biir combat bi xawoon na ma jaaxal. wala seetaanee les images. xam ne am na am na lu koy rongé à l'intérieur à l'intérieur te te nanguwu ko wax hmm. mais daal su nekkee loolu am na hmm. na dem defi opération hmm. dem ba France xooli les meilleurs spécialistes faji tànkam boobu soog a ñëw jàmbaarloo gars yi euh, li may terminer rek mooy euh, si le côté pikinois euh, est-ce que deux cent pour cent Pikine bi moo ngi ba tey parce que tey jii si combat Ama Baldé bi gisuma ci ay magu Pikine non deux cent deux cent pour cent dama lay dagg sax deux cent pour cent moom loolu amul man 200 pour cent Pikine bu ñu koy defal franc soq j'étais là di tous teer dignitaires de Pikine étaient là-bas di les dignitaires de Pikine open press soq ñu ko defee woon jumaa sëñ Mansour ma ne la dignitaire Pikine ñëpp a ngi fa. Hmm. mais open press Ama Baldé à à à à Sad Alassane amul benn dignitaire Pikine bu fa bu fa ñëw. amul benn magu Pikine bu fa ñëw amul benn magu Pikine du ma tudd benn tur mais magu Pikine yi xam nañu man xam naa ñoom du kenn ci ñoom ku ñëw jege Ama Baldé. dañu seetaan Ama Baldé si combat bi. et boo camp de Boy Niang dafa wéet si combat bi gisuma kenn. combat bi jouru combat bi Ama Baldé lu dul famille Baldé Baldé gisuma fa koo xam ne personne extérieure bu ñëw donc 200 pour cent pour Kindle je pense que que ce n'est que ça existe que de nom ça ça n'existe que te lii tas na lii mooy tas 200 pour cent hmm. bi parce que contrairement boo demee parcelle. waaw da nga gis ñoom dañoo doon benn mbër yëpp. noyau dur même Mansour Ba. le promoteur il était là-bas. Hmm. Mansour Ba il était Khadim Gadiaga ñoom ñëpp dañuy ñëw jàpp si combat bi. Hmm. donc côté Ama Balde y avait que Balde Balde. Hmm. amul leneen bu fa lu fa rax. 200 pour cent Pikine bi nañ ko xoolaat balaa muy Pikine di gën a tas parce que échéance bi ñëw moom mooy euh, Eumeu Sène contre Tapha Tine dimanche prochain yaa soq qui va venir le 25 décembre moom ak moom euh, Jackson 2. am na yeneen échéance yeneen échéance Boy ñaa 2 war a bëree ak ki nga xam ne moom mooy Modou Lo le 1er janvier 2024 donc Pikine daal bu ñu jógul seen bopp. parcelle dina dina leen di bàcc bàccaat dina leen dóor dóor yu métti hmm. hmm. te duñ si mën dara hmm. dina jaajëfal bu baax grand ba sa disponibilité waaw merci maa ngi lay jaajëfal Pa Ibrahima di leen jox rendez-vous lundi prochain si beneen round up si diggante Tapha ak Eumeu mu nekk Tapha Tine nag euh, Eumeu Sène nekk si pression bu méttee métti combat la boo xam ne dafa war a gagné sinon Pikine dinay gën a suuf dans la crise euh, merci beaucoup grand ba